sport Birahim Seck bu forum civil nee na nguur gi nag dafa war a def nànk ba noppi teey reddition des comptes naam war na am waaye nag dañ ko war a teg ci yoon le quotidien yéen kaay dellusiwaat ak ñun ci aay gi nga xamante ne nag aay nañ ko Madiambal Diagne mu génn réew mi ma Madiambal Diagne moomee nag nee na lii xoqatal la te moom du ko nangu tey du ko nangu ëllëg Khalifa Sall ak forum du justiciable ñoom nag ñu ngi ñaawlu aay gi nga xamante nag ñi ngi koy aay yenn kilifa yi fi nekkoon ngir ñu génn réew mi daa amub dal ndax ñi ngi jëm ci ay élection législative anticipée ku ci nekk nag dañ cee war a bay sawaar mu di pouvoir ak opposition opposition boobu le nag waa Bunkilin tàmbale nañ leen wan ginnaaw ginnaaw bi nga xamante ne nag ñu bëri ci askan wi ñi ngi wuutali jox bopp kile di Bakary Fatim mi nga xamante ne nag mooy directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau moom nag moo tàmbalee néewal seen doole Babacar Ba di njiitu forum du justiciable nee na nag bépp politicien da nga war def sa kéem kattan ba respecter état de droit Aliou Tine Sène di njiitu Africa Jom Center nee na nag ñi séq langue politique bi dana war a waxtaan te jiital nag bëgg-bëgg askan wi bés bi la jour dina xamal ni Moody's moom wàññi na bu baax notu Sénégal ba ci B1 te lépp nag li ko waral moo di faux chiffres yi nga xamante ni nag joxe woon nañ ko Cheikh Diba di jëwriñ bi dénk kopparu réew mi nee na wàññi teg notu Sénégal boobu li ko waral moo di déficit budgétaire bi ak boor bi nga xamante ni dafa yëg ba jéggi dayoo professeur Amath Ndiaye xam-xam màcc ci wàllu koom nee na chiffres yi nga xamante ni nag nguur gi moom la joxe moom moo gàkkal suñu derub réew ba noppi nag tiital yenn investisseurs yi ca jamono jooj nag enquête yéen kaay dalal directeur général bu Sen'Eau di Maguette Niang moom nag nee na 2020 ba léegi amul lu ñu yàqul seen société bi lee kaddu yu ñaaw yu nekk nag teg nañ ko seen der bi te pourtant ñoom seen charge nag jege na ñeenti milliards suñuy koppar moom Maguette Niang nee na kilifa yi yees yi nag seen bëgg-bëgg moo di ñu yokk njëgu ndox mi moom directeur général bu Sen'Eau bi nee na nag waa Suez ñoom ñoo ko fi tabb waaye nag du nguuru Sénégal te nag dàqub Omar Ba bi nga xamante ne nag ñi ngi ko doon sàkku ñoom teg nañ suuf les échos yéen kaay ñëwaat ak ñun ci déglu gi nga xamante nag ñi ngi ko doon déglu homme d'affaires bii di Abdoulaye Sylla ci virement wu ñaari millions ak genn wàll ci kopparu euro ñeel société Mame Mbaye bile moom Abdoulaye Sylla nag mi ngi koy wedd ba mu set te nag nee na déposé na plainte ñi nga xamante nag ñoo koy tuumaal moom nag nee na mosul def benn transaction ñeel société bii di SCI Niang nee na xamul sax fu mu féetee di Abdoulaye Sylla nee na nag ci atum 2013 ba léegi tegul tànkam foofee ji France document yi nga xamante nag nag ko ko wan document yooyu wérul lu soleil yéene kaay ñëwaat ak ñun ci bëccëgu seetal sunu réew bi nga xamante ne nag tey jii lañ koy amal jagleel ko école yi école yooyu la nag ñaari fan rek moo des ñu ubbi te pourtant nag yenn ci daara yooyu la ndox mi nangu nañ leen am na yoo xamante ne nag saltewaayam fokk natt weesu na ko yeneen école yi tamit dañoo màggat am na yoo xamante ne nag foog ñu nettoyer leen ngir ndaw ñi mën fa faa jàngee njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag tey ca lycée Demba Diop Mbuur lay amalee journée seetal suñu réew Ousmane Sonko moom nag ma ngi ca université Assane Seck bu Ziguinchor l'observateur ki mu dalal tey mooy benn jigéen bi nga xamante ne nag dafa amoon feebaru cancer waaye moom mujj naa wér waaye moom neen nag xelam daloon na ci feebar boobu le nag yaakaaram tasul ndaxte gëmoon na ni feebar boobu le nag dina ko wan ginnaaw maanaam na ci amub tànn keneen ki nga xamante ne nag dalal nañ ko mu amu feebar cancer ba léegi nag mi ngi ci paj mi tàggat yaram ak Rewmi Sport équipe nationale bu Sénégal fësal na démb ñaar fukki ak juróom-benn yi nga xamante a jonganteek Malawi waaye Edouard Mendy ak Noah Fadiga ñoom bokkuñu ci Cheikh Londoy di góolu ASC Jaraaf moom nag woolu nañ ko moom ak bu Boulaye Dia journal bi dellusiwaat ak ñun ci Série A nee na Paul Pogba nag boo moytul dina mën a fubalaat ci atum 2025 record yéenekaay yi nee na tey nag match bu neex dinañ ko xaar ci diggante Real Madrid ak Villarreal bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Pape gay nag kët yëpp ngi tegu ci moom ndax match bi nag mooy matcham te ñëpp ngi koy xaar ñu yendoog jàmm